ginnaaw bi nga xamante ne jiital nañ suñuy kàddu ci muslu ci seytaane jaare ko ci kàddu yi may bëgg a wax muy aawus billahi min asheytaani rajim waaye ñu toftal ci tàmbale ci turu yàlla wi muy bismillahi rahmaani rahim waaye ñu toftal ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa waaye toftal ci sant yàlla di wax alhamdulilahi alquduus fi xaybil haahut almutajalla bil asma wa sifaat fi hadrati llaahut almaabuud fi aalami lmalakut waljabarut wannaasut wasalaatu wasalaamu ala man ilbasatat fi hazi maratib alxams wa kullu man amana bihi min aljinn wal ins sëñ Modou ñu ngi leen di tatagal di leen delloo ab nuyoo di leen wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërëjëf kon moo nekk noonu sëriñ Malick Guèye nekk rajo bu mag waaye sëriñ Malick dañuy tàggat yow ci waxtaan bi mhm. ñu gis ni bu yàgg dara bind nga téere boo xam ni lépp ci wàllum asraar la. wàllum mhm. aayoo ak lépp loo xam ne doomu aadama la koy doo ci dundam. Mhm. sëriñ maa ngi tax ñu ñëw ñëwal ci ay jotee ci téere bi nga xam ne bind nga ko ngir mën cee jëlee jàng yàlla. waaw sëñ Modou. Hmm. ñu nuyuwaat bu baax mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi suivre Secret Touba di leen wax ñu woy di gën di abonné rek hmm. ngir am na waxtaan yu bari yoo xam ne fas nañ ko seq man ak yow. yu jëm ci fànnu xam-xamu lasaraar ak xam-xamu faj muy médecine traditionnelle comme ni nga ko waxee rek euh, dañu jàpp ne tubaab bi dafa wax ne li nga bind dafa des li nga xam dafa réer loolu nag mooy bu fekkee yàlla dalaa may xam-xam nga def ko ci sa bopp wala nga def ko ci sa dënn ba nga deewaale moom mooy xam-xam boobu niil na su ko defee yàlla bu la mayee xam-xam nga bind li nga bind loolu mooy li des moo tax ñu bind sunu njëlbeenu bind nag mooy téere bi mooy majmua shajaratu tuuba li taalimi ulumil asrar mooy téere bi ngeen gis téere bi bi ñu ko taalifee ak léegi ëpp na at euh, ñu déwala ci fànn xam-xam lasraar yu bëree bari nag lasraar nag ñu ko waxee mooy ay mbóot ay secret waaye ay secret yoo xam ne ñu ngi ko toxalee ci alquranul karim waaye secret secret yoo xam ne ñu ngi ko toxalee ci asmaa la xusna ay muy yi waaye secret yoo xam ne ñu ko toxalee ci gàncax gi muy garab yi yooyu yëpp ay secret la su ko defee nag nit ki bu ko yàlla mayee xam-xam te mu fas yéenee bokk ko ñu baree bari mënu koo def ci woo ay nit ne kaay leen ma jàngal leen rek ndax su boobaa dafay restreint ci benn cadre waaye bu ko defee loo xam ne téere la am na koo xam ne mi ngi jënd téere bi mi ngi ba fongolu mi am na ku nekk ba Chine ba Japon ndax téere bi dem na fu nekk loolu mooy wane kon léegi tasaar ne xam beneen bi si aussi mooy bi ñu demee ba ci kanam génnewaat nañ téere bi muy chagaratul xuldi téere bi 102 secret ñu ngi ci biir tey su ma leen wanoon faxras bi nii rek di nga xam ne téere la boo xamante ni sama bindu loxo la maa ko bindal sama bopp tey bëri na ay xeetu secret yu ci ñëw yoo xamante ni mag ñi daaw ko nanga bind ci ay kayit waaye ñun li ñu gëm rek mooy xam-xam dañ ne boo ko joxul nit ñi nga jox ko suuf si te boo ko joxee suuf si ay mbugal nga ci jëlaal ak i duma parce que yàlla bi mu lay xamal daa bàyyi ñu baree bari ñëw xamal la yow tamit na nga fexe xamle ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xayrukum man waxal alquran ma allamahu ki gën ci yéen mooy ki nga xam ne jàng na alquran di ko xamle nag cela ba cela ne veut pas rek ne ki dem jàngi alquran ca daara ji rek lay waxal déedéet ndax alquran comme mooy umul kitaab mooy ndeyu téere yëpp kon bépp téere boo xam ne maanaam boo ko xamee mu jëriñ la te xamle woo ko da dugg ci cadre boobu kon kon boo bëggee gën da fexe ba loo xam nga xamle ko kon loolu moo waral tey ñu bind waaye itam bind dafay wane ne kii di wax du cuune ci domaine bu mu nekk ndax tey nit ki bu amee sañ-sañu bind téere maanaam kon kooku mi ngi xaar ay laaj ay ay ay laaj ak ay tontu te loolu ko amul xam-xam doo ko def waaye nag. bëri na léegi loo xam ne tuxal la al intiqaal mooy fekk convention mag ñi rek ngay ngay ngay ngay jukki di teg rek di indi bokkut ak xam-xam xam-xam moom nit ki day mën a bind ba pare mën a layal li muy bind lan lu mu doon nga xam ne tey boo ko taajoon ci ab débat télévisé dina la mën a wax ci fànn bi mu bind lu bëree bëri loo xam ne nit ñi sax xamuñu ko ci kon loolu moo waral tey ñu bind téere yi su ko defee téere yi bu fekkee bii 7500 lay weccee ko <coughs> mais moo segal tubaab bi boobu ñu bëri mën nañ ko bii nag soixante mil lay jar ndax li ci nekk ci ay kayfiyaat dafa doy waar lool ci mbindu mag ña ak ci yoo xam ne tamit xam-xam yu yàlla yénkoy walla moom nag ñoom ñaar ñëpp boo ko soxlaa ci livre am na fi boo ko soxlaa pdf am na ko